salut les amis ziar bu baax a baax a baax dal leen ak jàmm ci seen podcast Wolof Tech bi leen di jox lépp lu jëm ci wàllu informatique ak nouvelle technologie maanaam xarala yu bees yi ci kalaama wolof alors comme ni ñu koy defee nag chaque mercredi dañuy def épisode boo xamante ni dañuy dalal képp koo xamante ni sénégalais nga te defar ay projet yu am solo ci wàllum xarala yu bees yi mais aussi projet yoo xamante ni dafay amal njëriñ population bi yépp alors tey nag lañuy dalal ki nga xamante ni moo tudd màgget jàlloo jiite start-up bi ñu naan Maclean Corp ànd ci nag ak benn xaritam bu tudd Amadou Lindor Ndiaye ñoom nag ñoo ngi nekk fële ne la ci euh, Saint-Louis maanaam Ndar Géej alors ñoom nag li ñu créé mooy benn application mobile bu ama ama am solo pour tailleur yi donc nag tey loolu la ñu war a waxtaanee ci épisode bi nii alors màgget ziar nañu la. Euh, ñu ngi lay allah macha allah donc yow la ñuy waxtaanal tey ak euh, yow la ñu ci ay ak yow la ñuy waxtaanal application bi nga xamante ni moom ngeen defar te mu tudd ñawal ma n'est-ce pas. ah d'accord. alors aussi tàngul torop. <laughs> Ah, xam nga dex géej gi tout ça. donc fii moom tàngaay bi mu macha allah macha allah non Saint-Louis moom dëkk bu neex la quoi. Ah, <laughs> ñu dem directement kon nag suñu épisode tey bi maanaam. ak application ñawal ma dootu leen perte seen mesure benn client. alors tey nag ci suñu épisode bii nii ñu fas yéene dalal euh, nit ki nga xamante ni moom moo créer application bu ama am solo fas yéene ci dimbale bépp tailleur bi nga xamante ni moo nekk Sénégal wala Afrique wala ci àdduna bi yëpp. alors je pense que tey ñëpp xam nañ liggéeyu tailleur naka lay demee soo bëggee ñawlu dangay dem ci atelier bi yóbbu sa tissu tànn sa benn modèle euh, ñu jëlal la mesure bind ko ci ay papier taf ko ci tissu bi wala sax ñu bind ko ci ay kay yoo xamante ni kay yu mag la yoo xamante ni day nekk souvent euh, ci atelier yi am na sax ñoo xamante ni seen mesure yi dañ koy envoyé par WhatsApp wala par Facebook euh, envoyé ko tailleur bi mu garder ko ci téléphone après tailleur bi su amee information yooyu yëpp nag ñawal la sa yére ba pare livrer la sa tenue alors xam nañ nag ne ñi ñëw di def commande ci boutique yu bari nañu torop torop torop torop imaginez ñoom ñëpp seeni information maanaam seeni mesure nga war ko bind ci ay kayit alors su kayit bi réeree beneen yoon foog client bi ñëwaat pour jël si mesure su kayit bi yàqoo wala mu réer moom tamit wala mu lakk même chose foog client bi ñëwaat jëlaat mesure donc nag il faut que ñu trouver solution pour mun a euh, saafara jafe-jafe yooyu nga xamante ni mooy am ci atelier de couture yi. alors loolu nag moo tax Maguette Diallo defar application bi nga xamante ni euh, moom moo ñawal ma pour saafara jafe-jafe yooyu nga xamante ni moom la tailleur yi di rencontrer ci seen atelier yi. alors Maguette avant sax ñu dugg ci euh, application bi nga xamante ni créé nañ créé créé ngeen ko bëggoon nañu xam déjà kan mooy Maguette Diallo. bu fekk euh, laaj boobu jafe na jafewul ndax euh, xam yaay gan dina jafe mais ci tënk mën naa ni euh, Maga Diallo benn ndaw la bu am vingt sept ans développeur DBMS am licence am réseau sécurité formation boobu laa def à Subdeco cofondateur Magline créateur de l'application ñawal ma donc en résumé loolu laa loolu mën a wax euh, ci ci Maguette Diaw. ok ok alors na nga yëkkati voix bi ci kaw bu baax nag pour que auditeurs yi dégg la parce que lu am solo nga defar tey je pense alors. comme ni ma ko waxee sànq ci voilà comme ni ma ko waxee sànq ci ginnaaw léegi euh, yow ak sa beneen collaborateur yéen a créé application bi euh, mais aussi da ngeen am benn start boo xamante ni ci ngeen di yëngu mu tudd Maclean Corp alors kañ ngeen taxawal seen start-up boobu noonu Maclean Corp ak lan moo nekk seeni objectif général. Euh, Maglin Corp euh, ñu ko créé euh, le 3 janvier 2020. ok man ak sama xarit bi Amadou Ndindor ñu ko créé parce que dañ doon gis ni bëri secteur yoo xamante ne ci Sénégal bi gars yi bàyyiwul nañ xel comme développeurs yi xaw lu parce que développeurs yi parfois man dama peut-être dañ Euh, fonctionnalité yi ñu ko gis yoo yoo basique wala boo ko euh, en fait euh, duñ gis meneen actuellement boo nee développement gars yi naan intelligence artificielle. Mhm. affaire compliqué et d'habitude les les développeurs affaire yooyu da leen di charmer dañuy bëgg fuyee yoo xamante ni dañ fi nekk. gars yi di ci muy doxal Sénégal bu baax muy dugal xaalis bu bëri mais mu nekk secteur boo xamante ni euh, seen yi muy soxla bëriwul bu ndaw la pour bu fekkee ci wàllu jumtuwaay mën nañ ko gën a pousser nag c'est nañ ko gën a pousser dugal ci yeneen mais boo xoolee ci base affaire bu ndaw lay ne loo xamante ni euh, daanaka nit ñi dañ koy xeeb léegi nag mag lañ korf startup bi ñu toog nag ñu xalaat ko ñu ne nañ jéem a xool secteur yooyu nan la ñuy def ba ñu am ci ba nu bokk wala bokk ñu mën a bénéficier wu. Mhm. ci xarale yu bees yi. Mhm. vu que ni actuellement ñëpp ñu ngi ak seen smartphone moom la ñuy ñu ne nañ yor. Mhm. ci fi muy liggéeyee. mu bañ a sonn utiliser même outil boobu. pour mun a pour mun a avancer ci liggéeyam. donc ci la ñu man ak sama xarit di tudd Amadou moom euh, ci la ñu di. taxawal société boobu. ñu mhm. tudd mag mag mag leen ok boo xamante moom moo ëmb tamit start-up pense que am na solo trop parce que comme ni nga ko waxee nii c'est-à-dire technologie yu bari nañu trop tu vois am na ci yoo xamante ni dañoo compliqué jafe nañ tey da ngay dégg nit ñu di wax affaire intelligence artificielle comme ni nga ko waxee ay wàllum blockchain ak yeneen ak yeneen alors te tey boo xoolee nii su suñ population bi soo wàccee ci suuf ñoom am nañ ay soxla yoo xamante ni sax. pour ñu am premier version yi jarut ñuy am technologie bu bari bari bari bari bari tu vois déjà je pense donc, donc du coup yéen loolu moo tax tey euh, ngeen ñëw démarrer ci simplicité c'est-à-dire démarrer ci simplicité wàccee seen bopp comme ni nga ko waxee pour xool besoin nit ñi lan la pour mun a xool li ngeen xam ci wàllum technologie lan moo ko ci mën a régler te gis ngeen ne euh, nit ñëpp pratiquement seen téléphone portable yi leen yor te donc du coup téléphone portable yi war na leen war nañ ko mën a jëriñoo ci seen liggéey voilà du nekk téléphone kese wala waxtaan kese mais war nañ ko mën a jëriñoo ci seen euh, ci seen liggéey et je pense que loolu lu am solo la foog nit ñu di wàcc niveau bi comme ni ñu koy waxee di wàcc niveau bi tuuti di xëppi xool population bi li ñuy dund xool seeni soxla nga basé wu ci pour defar euh, ay mbir amaana sax du nekk loo xamante ni day euh, day compliqué alors su ñëwee léegi ci application bi ngeen xamante ni créé ngeen ko muy ñawal ma. Euh, fan la idée boobu jógee ak euh, lan moo tax ngeen jékki-jékki rek xalaat dimbale tailleur yi pour defaral leen defaral leen benn application. donc boo xoolee ci euh, daanaka yow wax nga ko sax ci ba ngay ci bi ngay introduire. Mhm. nga ni tailleur yi boo xoolee ci ay cahier la ñuy ci ay bout de papier ak ci ay yaay colle yoo xamante ne dañ koy bindee collé ko ci ci ci. ci yére bi pour mën koo xàmmee mhm. mais boo xoolee loolu mhm. euh, benn instant day day am problème parce que tey jii bu xasee ba nawal kooku benn yoon mu jël mesure bi tapp ko ci yére bi mhm. su paree mesure boobu da ngay bokk koy koy réer kooku su ñëwaatee sa ëllëg sa sa ëllëg sa bu ñëwaatee day jëlaat mesure am donc gain de temps bu fekkee ni dañuy xool ci wàllu temps mu ngi perte temps ci loo xamante ni ah, waroon na ko def yàgg bu dee kaye bi kaye bi bu dee kaye bi kaye bi day fees da ngay jënd waat beneen kaye kaye bi mën na réer benn feuille mën na xotteeku te su boobaa da ngay reprendre at bi nga defoon. ok euh, bi ñu ngi jógee ci sama benn xarit boo xamante ni tailleur la. moo mm. ko daan fréquenté di fa toog. benn jour mu ñëw na euh, gis ko muy wër kaye kaye bi mu defoon mesure bi koy wër. <laughs> wërkaay bi fees mu yónnee pour que dañ jënd beneen kaay. ok ñu jënd ba pare muy wër dig pour mu jël mu jël jaxasoo complètement quoi. <laughs> donc mu ngi taxaw mu war a jël mesure am et tout ça tu vois bàyyi liggéeyam di wër kaay di wër dig te loolu yëpp temps bu ne la utiliser. avancé dem yoonam. ça c'est sûr eh, moo wax ñu xool ñu waxtaan ci loolu moo xool man tamit lii nii war na dakk quoi lii war na dakk parce que instant bi niveau bi évolué wàllu informatique ba nga xamante ni yii nii da ngeen ko war a dépassé est que amul application boo xamante ni disponible na pour yéen parce que Play Store bëri na ay application yu fa nekk euh, Apple Store la même chose Store yi yaa na tellement d'application mm-hmm. léegi nag ñu xool wër gisuñu. gisuñu benn application boo xamante ni. Mhm. Sénégalais yi mën nañ ko utiliser. boo xamante ni buy jëloon ñu gisoon mooy ay application yoo xamante ni da nga koy dugg pour bëri na ñu fa nekk. mais amul benn boo xamante ni outil boo xamante ni tailleur bi da koy mën a utiliser pour juste liggéeyam pour gérer ay clients gérer ay mesures amul loolu. surtout mhm. si si. ma xool loolu ñu xool loolu man dañ toog def étude ngeen wax ma lan ngeen lan ngeen di jëlee mesure mesure yi lan la ak lan bu ko defee ñu jéem a xool lii nan lañ koy defee application ñoom ak lépp gëmuñu woon ni sax c'est possible parce que gars yi dañ jàpp ni yooyu tubaab yi rek ñoo ci mën dara. si si si si. Sénégalais yi nga xamoon bi yi nga xamoon ñu si dara gëmuñu woon man leen leen daal bu leen ci bàyyi seen. ñun daal wax leen ma li ngeen soxlaa gi ñun koy defee ngeen neen jox leen ma données yi après man bu ma données dinaa ci toog ñu liggéey bi foofu la jógee foofu la mhm. ñu ñu ñu ñu defar ko tey mu taxawal je pense que ni c'est parti ci benn constat boo xamante ni euh, c'est réel quoi donc problème réel boo xamante ni da nga ko assister Euh, ci nga jaaree ba defar application bi et je pense que c'est ça le Sénégal quoi tu vois je pense que ñun ñëpp bu ñu doon xalaatee noonu bu ñu doon doxalee noonu aussi je pense que dina mën a sotti parce que euh, toog sa kër rek xalaat benn application te du régler problème amul njëriñ li baax mooy nga dem confronté wu ak population bi xam seeni soxla xam seeni jafe-jafe après nag yow li la yàlla may ci xam-xam ci wàllum xarala yu bees yi nga mun ko utiliser pour xool naka nga leen dimbali Euh, foofu nga jaaree ba créer application bi mais est-ce que léegi euh, mën nga ñu expliquer application boobu noonu naka lay doxee ak yan fonctionnalité moo nekk ci biir pour que nit ñi mën ko utiliser maanaam tailleur yi mën ko utiliser euh, mu nekk lu ñuy jëriñ aussi ci seen liggéey. fonctionnalité yi comme li ma la waxee. tey jii développeur ko boo ko boo ko présenté da ko jàppee ak sànni. Mhm. bëriwul. Mhm. li li tailleur bi soxla rek moo ci nekk. ok pour gérer client. li père bi soxla juste loolu mooy mhm. mooy mooy day soxla xam client am nu mu tudd nu mu sant ak numéro téléphone loolu daf koy jël bëgg na xam ci góor la wala jigéen pour xam ban façon mesure la koy la koy la koy jëlal parce ci ñoom laa xamee ni dagatee mesure yi may jël ci jigéen bokkul ba tey ak mesure yi may jël ci góor. waaw yi bokkul oui ça c'est <laughs> euh, ci góor dañu la koy jël. waaw ça c'est sûr. <laughs> après parce que parce que ñun boo nekkee ci beneen côté bi da nga naan mesure mesure rek la da ngay jël. Ah, après doo xam c'est ko mu pare. ku nekk ak métier am ku nekk rek moo mën xam métier am quoi. ça c'est sûr c'est ça c'est ça boo boo boo defee échange ngay ngay après. donc ma ne loolu c'est à prendre en compte pour muy yombal liggéeyam moom ci biir léegi bu dugalee tur bi dugal sant dugal numéro téléphone bi mu def lan mu choisir sexe bi góor la wala jigéen. bu choisire góor am na mesure yi ñu koy présenté mooy mesure yi nga xamante ni góor moom lay soxla pour pour ñaaw pour ñu mën ko ñawal yére tey jii application bi dañ ko defar di telle sorte que bu xasee ba ñëw boo xasee ba jël mesure am dootoo soxla jëlaat beneen mesure. ça c'est sûr ça c'est sûr ça c'est sûr bu bu mu munti da mën a ñawal ko te doo te doo soxla waat ak jëlaat mm-hmm. parce que dañ def investigation bi exactement yenn mesure yoo xamante ne moo nekk mesure yoo loolu lañ collecté. duggal ko ci biir ci biir application. ok donc jël na turu mooy information wu client bi turam santam numéro téléphone am mu jël mesure yi mu soxla mesure yi mu remplir mesure mais aussi tamit def nañ ci système boo xamante su ko neexee yenn mesure yi mu koy jël. ok dafa am yoo xamante ni dafa am yoo xamante c'est pas obligatoire. non mesure dañ ko def de telle dara obligatoire. ok ñun dañ koy prévenir avec des ay zéro zéro zéro zéro zéro moom mooy xool par exemple mu war a jël école mu jël école bi directement mu war a jël euh, par exemple cours bi mu jël cours bi après avancer pour pour pour pour mu bañ a perdre du temps. ok pour bañ a perdre du temps parce que parfois dafay dafay soxla juste quelques mesures après avancer. Mhm, mhm. Euh, su defee loolu bu jëlee mesures yi mu avancé après na mu choisir ban modèle lay ñawal ci ñaar parce que loolu tamit. problème la woon ci ci ci euh, ci euh, ci ci ci ci tailleur yi parfois dañuy réeral modèle nit ki dañuy réeral modèle nit ki surtout ay tabaski ay toro ca xam nga waaw dootuñ dañuy gis ci subi nii rek waa ji ban <laughs> modèle la waxoon rek ñu xëcc benn modèle dañuy jël rek comme ça vey vey tabaski sax mu ngi waaj a ñëw ça tombe à pic sax tabaski mu ngi waaj a ñëw gars yi dañ ko war a installer pour mën a gérer client kon <laughs> boo am loolu. dootoo dootoo jaxaseeti moroomu jàmbur. ça c'est wala nga toog naan jiw ay waay yére la moo ci ci ci niveau boobu nga parce que boo jëlee nit ba pare jox nañ la possibilité nga mën a photo modèle am modèle bi wala boog nga jël modèle yére bi ci say ci sa galerie. ok nga deux possibilités. ok ok cest à nga ko photo ak sa appareil téléphone bi. wala mun nga ko aussi jël ci sa euh, ci sa ci sa galerie photo bi maanaam comme ça bu fekkee da la envoyé woon photo bi par WhatsApp ba mu nekk sa biir télé machine. sa WhatsApp c'est ça effectivement waaw nga ko utiliser directement nga importer ko. c'est ça. ok ok ok. soo choisir loolu. kon ça veut dire que ni am nga information client bi am nga mesure client bi am nga modèle yére bi ñu koy ñawal. ok ok ok ça c'est intéressant. ça c'est et et beneen affaire. te beneen affaire. Mm-hmm. bu ñëwee yére boobu ba pare. Mm-hmm. après modèle boobu su ñëwaatee mun nga changer modèle yére boobu. Hmm, ça c'est intéressant bu ñëwaatee mun nga ok ok parce que parce que parce que bu fekkee loolu abu sens parce que nit ki bu ñëwee yére bi ñaan yàlla mu ñëwaat su ñëwaatee nga dugg juste si mesure changer modèle bi après avancer. ok donc loolu mooy permettre par exemple mun nga xam euh, benn nit ñaata yoon la ñawlu moom ci biir c'est-à-dire bu ñëwee boo changé modèle bi yëpp da ngay am historique bi aussi. ah historique bi nag après loolu dinañ ci wax. après ci kanam. mais après loolu daañu ci ñëw. ok daañu ci ñëw parce que parce que parce que fonctionnalité boobu implémenté guñ ko mais gars ñu ngi koy demandé bu baax ñu ngi koy demandé bu baax. mais dafa nekk fonctionnalité boo xamante ni loolu lañ euh, bi mesure am ak jël euh, boo xamante ne moo ci nekk ay mesure am ak modèle yi mujj ñawlu. juste loolu la en fait seen tur lay listé seen tur ak seen numéro téléphone léegi par exemple élib la la jël mesure léegi day cliquer ci élite directement su cliquer ci élite donc mesure élite bi yëpp ak modèle bi ci suuf. ok ok ça c'est intéressant bu dagg bu fekkee bu fekkee day dagg wala muy ñaar. Mhm. day ibbi application bi. Mhm. ci élite teg ci kanamu ma euh, machine bi. Mhm. di xool di ñaw. ça c'est cool. ça c'est intéressant alors man li ma gën a li ma gën a li ma gën a intéressé sax ci application bi comme ni nga ko waxee ce sont des euh, yoo xamante ni la yomb na ci gis-gis nii mais c'est que li tax application bi extraordinaire mooy que ne dafa facile à utiliser c'est-à-dire dafa yomb a utiliser c'est-à-dire même ku mosta jàng sax boo duggee ci application bi da ngay xam déjà première page bi maanaam première interface bi ngay njëkk gis boo euh, installer application bi da lay benn nit ku taxaw ak différents modèles différents mesures yi nga xamante ni mën nañ ko jël ci moom c'est-à-dire épaule wala poitrine wala mu wan la euh, longueur pantalon wala genre yu demee noonu quoi bu dee femme la aussi mu wan la ligne mesure yi nga xamante ni mu ngi ko jot da nga koy gis ci benn photo la ko ngeen ko ngeen ko schématiser. encore aussi euh, beneen fonctionnalité bi ma gis ne c'est hyper intéressant te bëggoon naa nga expliquer ma ko un peu mooy aussi euh, synchronisation bi dafa mel ni gis naa lu mel ni sauvegarde ci biir. et ça c'est hyper intéressant na ñaari fonctionnalité sax ñaari ah. fonctionnalité yoo xamante ni sax eh, après après parce que dañu déployé woon application bi kii eh, eh, utilisateur yi ñoo ñu demandé fonctionnalité ñooñu demandé fonctionnalité yi après ñoom ñu dugal après ñu ñu intégré comme partage mesure yi ak sauvegarde bi ngay wax waaw sauvegarde bi sauvegarde bi bokk na ci lu am solo ci ci ci application bi comme ni ñu ko waxee parce que imaginez nit ki di utiliser application pendant benn deux ans portable am réer wala mu bëgg changer portable. waaw waaw waaw ça c'est problématique. c'est problématique. waaw <laughs> waaw. Mhm. léegi ñaata client la enregistré woon. borom foo mën a toog di répéter loolu di toog di recopier parce que dañu war a dépasser niveau boobu. loolu tax nañu intégrer sauvegarde sauvegarde bi ni muy doxee mooy jafewul lenn rek ngay def mooy amal compte Google. ok amal compte Google kese la lay laaj sa compte Google kese ngay ngay ngay ngay ngay sa compte Google maanaam sa email bi ak mot de passe bi automatiquement euh, nga connecté wu soo connecté woo application bi léegi nag di prendre en charge sauvegarde hmm. mais sauvegarde bi yow sa sauvegarde mais sauvegarde bi tey jii bu la neexee sax wala nga toog ba si yàgg nga juum supprimer benn tur mën nga dem directement restaurer données yi ci saa si mu restaurer données yëpp maanaam mu delloo si fi may fi may wax ak yow nii sax maa ngi koy essayer nii mu ngi ça marche quoi waaye ça marche. ak sa drive sa drive la sa Google Drive ci lay dem tu vois. après nga autoriser ko nga xamante ni day mën a day mën a sauvegarder sa données yëpp à temps réel. ci euh, ci cloud bi mun naa wax ci cloud bi la koy sauvegarder tu vois ba bés boo ñàkkaatee sa téléphone soo ko installé waatee rek dafay ñëwaat directement nga amaat toutes les informations ça am na solo je pense que bokk na ci fonctionnalité yi gën a gën a gën a am solo yoo xamante ni def ngeen ko ci euh, ci application bi. ak ak beneen mbir mooy par exemple tey jii. te mhm. moom mooy partage mesure par exemple. tey jii imaginer man ma nekk tailleur di gérer samay client di gérer euh, sama sama sama sama atelier ma génn joxoon benn client euh, joxoon benn benn benn sama apprenti ni ko mu ñawal ma yére bi ma génn mu naan ma mesure bi ñaata la woon mu woo ma téléphone. ok ma laaj. ok ma mesure bi ñaata la woon. automatiquement mën naa ko partager mesure bi. mesure client bi ma partagé ko ko par WhatsApp par message ma partagé ko directement moom bu ko defee mu jot mesure yi bu ko defee du la tardé ci dara doo ko tardé ci dara ngeen avant ok maa ngi koy gis nii maa ngi koy gis nii testé naa aussi fonctionnalité boobu te mu ngi jàll ak WhatsApp bi ça partage quoi c'est-à-dire mën nga dem ci benn mesure benn client nga partagé ko ak whatsapp wala yeneen plateforme ak beneen nit koo xamante ni bokku leen sax fu ngeen nekk wala mu laaj la ko wala demee ah ça c'est hyper important je pense que c'est facile et tout est sur yenn yenn yenn euh, fonctionnalités yoo xamante ni existé woon na comme Google Drive yu amoon na bu yàgg par et tout ça waat nga li nga xamante ni mooy existant bi ak li nga xam moom nga créer sa bopp pour mun a euh, dimbale euh, je pense tailleur yi alors donc juste avant ñu continuer ak laaj yi nga xamante ni bëgg nañ ko laaj euh, Maguette Diallo ci application bi nga xamante ni defar na ko muy ñawal ma euh, dañuy jàll léegi ci beneen rubrique bi nga xamante ni mooy Tech News avec Zeyna Diop mu indil ñi li nga xamante ni mooy actualité yi am euh, ci nouvelle technologie à travers le monde alors je pense que tey nag indil nañu ay nouveautés c'est-à-dire Google Suite bi nga xamante ni dañ ko changer léegi mu nekk Google Workspace mais aussi indi nañu benn projet boo xamante ni waa Facebook ñoom ñoo ci nekk. nekk mu nekk text style brush bu ma jumul ñu déglu Zeyna ci rubrique tech mbokk internet yi dal leen ak jàmm ci seen rubrique xarala yi xew ci wàllum technologie muy innovation wala news tey nag mu nekk sunu deuxième rubrique. première xarala bi nag ça concerne benn service boo xam ne Google moom moo ko annoncé euh, mu tudd Google Workspace Google Workspace nag moom moo remplacé euh, G Suite G Suite la tuddoon léegi dafa changé e ba pare léegi sa devient gratuit léegi gratuit la ba pare euh, accessible na si ñëpp ñi nga xam ne am nañ compte Google. Google Workspace dina yombalal euh, grand public wala professionnel mën a rester en contact wala di partager ay idées ñëpp tamit suñ ko amee tamit dina dina mën a organiser des réunions familiales wala wala planifier ay rendez wala aussi discuter ci benn thème. y a aussi Google Workspace individuel nga xam ne dina nga mën a créer sa compte personnel surtout les entrepreneurs dina. dina leen permettre ñu mën a gérer wala faire connaître la entreprise et surtout dina permettre nga mën a def lu la neex par exemple gisante ak ay clients wala envoyer email wala aussi def ay planification rendez-vous et c'est sécurisé dina mën a sécuriser say données ak say information beneen point bi benn projet de recherche la en intelligence artificielle Euh, bu tudd textile brush xam te euh, Facebook moom moo ko initié. projet bi nag day permettre nga imiter style texte bu nekk ci biir image genre su fekkee da am benn texte ni mu nekk ci ci image léegi à travers soo su jëlee benn moo léegi mën nga am style texte boobu yépp mën nañu wax ne c'est la première fois ñuy gis benn projet en intelligence artificielle nga xam ne dina dina mën a. jël texte boo xamante ne même texte nga xamante ne ci biir image lay nekk nga xamante ne di nga modifier wala nga éditer ko. lii moo nekkoon actualité yi nga xam ne moom la leen andi ci xarala yu bees ñu ngi leen di jox di daje mercredi prochain ci yeneen yu gën a gën a am solo allez merci ciao. merci beaucoup Zeyna je pense que information yooyu am na solo trop trop trop trop et maa ngi fàttali na yow tamit chaque mercredi euh, di nga ñëw ak ñun indi ñu lan moo xew ci àdduna bi ci wàllum euh, xarala yu bees yi incha allah alors ñu yeggale suñu émission bi nag ak Maguette jàll ci application bi nga xamante ni proposé na ko muy ñawal ma comme ni ma ko waxee aussi ci épisode yi nga xamante ni moom la ñu passé cest à diir euh, ci saison yu yàgg yi bëri na ay technologie yoo xamante ni mën nañ ko utiliser pour créer ay applications mobiles alors yéen euh, ci seen startup bi ak ci seen projet ñawal ma bii nii yan technologie ngeen utiliser pour defar application bi nga xamante ni moom mooy ñawal ma ak lan moo motiver seen choix technologie yooyu noonu. waa boo xoolee euh, comme ni nga waxee technologie actuellement bëri nañ. Mhm. React mi fi Ionic mi ngi fi yeneen ak yeneen ñu ngi fi mais actuellement Google dafa lu bees daanaka euh, mun naa ko tuddee bees muy Flutter. ok Flutter moteur bi basé ci waaw Flutter. Mhm. moteur bi basé ci Dart. Mhm. Dart waaw. Mhm. mu nekk benn SDK boo xamante ni instant bi ñëpp ci bàyyi xel. Alibaba seen application bi moom lañ ko defaree waa BMW seen application bi moom lañ ko defaree waa Google Pay application boobu moom lañ ko defaree. boo xoolee dafa dafa méngoo ak actuellement euh, li gars yi soxla mooy benn langage boo xamante ni wala boog benn benn SDK ou pour ñenn ñi nga xamante ni euh, benn framework boo xam. permettre mu mën a créer ci benn base de code mu mën a générer comme euh, ni ñu ko doon waxee ci yeneen yenn épisode am boo doon expliquer euh, système boobu Android euh, si nan nga mën a générer mooy technologie hybride et tout ça naa bàyyi gars yi ñëw ñu déglu podcast pour a. waaw comprendre waaw yi bu ñu ko dégloo dinañ gën a comprendre oui ça c'est sûr. <laughs> cest à générer waaw a comprendre benn base de code nga générer ci ay application yu bëri yu daw ci différentes plateformes yu bëri quoi. ça donc du coup da ngay mën a ci benn base de code nga générer ci Android générer ci euh, iOS bi euh, ba pare mën ci euh, application web bi actuellement sa plutôt dañ dem ba mujj gi mën ci benn base de code nga créer ci application pour Android des logiciels Android ba pare mën ko ci technologie boo actuellement Mhm. Euh, ci version 2 bi instant bi ci dugal bagage yu bëri benn loolu loolu benn affaire mhm. mooy lu mujj ñëw la te souvent lu mujj ñëw day day day xool faiblesse ñeneen ñi ko ci côté performance ci côté performance plutôt dafa nekk loo xamante ne actuellement performance kenn euh, kenn kenn du kenn du kenn nekkatul di ci naatable performance ok beneen bi mooy facile d'utilisation surtout compliqué wu comme yeneen yi surtout ça compliqué wu comme yeneen mais aussi tamit pour wax gars man développement jàngeewu ma ko école. du ah ma réseau sécurité système réseau sécurité système laa def école <laughs> développement comme koy jàngal sama bopp maa di topp am en réseau sécurité système. ça c'est ça c'est ça. Euh, te flotter day loo xamante ni mais accessible aussi tamit licence en kii euh, la am bac L2 la am maay dégg koy si mhm. ba oui parce que alors léegi littéraire ak scientifique amatul ah c'est-à-dire ku am itte rek moo am léegi quoi c'est-à-dire boo amee itte rek. lu la neex ci xam-xam mun nga ko xam quoi ça c'est sûr. na Google fi ah. YouTube lañ fi euh, cours fi en donc. donc Fouta nekk loo xamante ni mu accessible ci man neex a utiliser fekkoon na nag ma sukkee ci ñoom C ñoom Java affaire yooyu noonu euh, après ba ma gisee parce que dama mës a bëgg créer ay application mobile depuis avant même sax may dem université ba ma nekkee euh, vacances euh, après bon amee bac juste noonu def nekk France daa commencé di def recherche après dëgg yàlla mujjee ci. mais Pluto comme gis ngeen Pluto facile d'utilisation te benn nekkul nekkul trop dafa wuteeg yeneen yi xamante ne da ngay def booy créer application da ngay bëri ay langage yooyu jàng pour mën a créer application par exemple Android nga dégg jàng fee Java jàng fee XML affaire yeneen am ay technologie yu bëri yoo xamante ne koy maîtriser voilà pour mën defar ci te aussi environnement de travail bi aussi nekk na loo xamante ni des fois mun na lourd mun na mun na diis. tu vois ak parce que man début bi sama machine euh, loolu taxoon xam nga découvrir le taux euh, problème bi moom mooy machine mënu attanul woon Android Studio attanu ko woon donc moom mujj utiliser VS Code télécharger SDK wu euh, SDK wu Flickr di ko utiliser di utiliser sama machine sama portable physique comme émulateur donc début bi noonu laa doon def. j'ai utilisé directement sama sama portable comme émulateur man ma bu nekk ci machine man alors man su ma su ma xoolee bu baax déjà ak li ñu expliqué nii yépp je ma dis que ne da nga da nga ci benn constat bu noble c' est à benn constat réel tu vois Euh, mën naa wax ne tu ne t'es la tête pour naan da ngay dem uti ay technologie yu compliquées yi wala genre demee noonu mais li la gën a itteel gën la ñor je pense moo nekkoon régler problème bi pour que gars yi mun a liggéey normalement utiliser xarala yu bees yi ci fa mun a yombal seen liggéey te tey je di dis ne su fekkoon ne su fekkoon ne par exemple tey da nga demoon uti euh, wala dem uti ay technologie yu compliquées dina def affaire bi dina ko def mais aussi dina nekk luy jël temps. parce que temps d'apprentissage bi wala développement bi ak yeneen ak yeneen mun na nekk problème alors que bu fekkee ne am nga solution boo xamante ni gis nga ne bu yomb la gis nga c'est accessible mun nga rapidement créer une première version boo xamante ni dina di dina dox nit ñi di ko utiliser réellement ba keroog nag ñu ciy seetlu mu yéex wala keroog ñu ciy seetlu yeneen jafe-jafe munu mën a migrer nag dem ci yeneen technologie yoo xamante ni peut-être mun na am mooy gën a efficace wala sax technologie bi ngay utiliser ci boppam euh, nga gën a ko performer maanaam def ko ba mu gën a baax alors c'est ça qui est intéressant je pense que mu nga nekk entrepreneur que nga nekk lu mun ci doon booy defar fexeel déjà nga am une première version boo xamante ni nit ñi dina ko mën a utiliser nga évoluer ak ñoom. mais ça sert à rien nga passer une année deux ans di développer benn application boo xamante ni après da koy génnee kenn du ko mën a danga ko fexeel nga am loo xamante ni danga koy joxe lu yem la nit ñi di ko utiliser nga ànd ak ñoom di jot seen ay feedback seen ay problème di ko defaraat di grow ensemble ba nga xamante ni voilà di ngeen mën a euh, am li ngeen bëgg alors man nag dafa am beneen euh, question boo xamante ni dafa am solo trop trop trop trop trop bëggu naa la ko laaj Euh, comme ni ñu ko xamee Sénégal fépp foo dem am na ay tailleur je pense fépp foo dem ci Sénégal tey fu gën a ruqe sax dinañ fa fekk peut-être ay tailleur je pense mais Sénégal aussi fépp foo dem amul connexion internet wala aussi su fekkee am na connexion internet euh, nekkul loo xamante ni day jàppandi saa su ne alors est-ce que euh, alors application bi nga xamante ni mooy ñawal ma soo ko installé sa téléphone ba pare est-ce que mën na dox sans internet. waaw c'est que boo xoolee application bi mooy comme li ma la waxoon ba ma koy defar. dama mhm. ko doon defaraat sax ci début bi kooku jàngam sorewul ci nasaraan donc looloo taxoon benn loolu benn na ci ñaareel bi mooy bu fekkee ni Sénégal comme ni wax déjà connexion rek problème la fi. Mhm. bu fekkee mën nga jënd connexion mënoo dëkk ci biir jënd connexion. ça c'est sûr loolu lañ basé wu nag ba ni dañuy def li ñuy defar. nit ki da koy mën a utiliser lu sonn ci dara du sonn ci dara ci utilisation bi boo ko muy pare du sonn application bi kan ngay soxla connexion hmm. boo ko téléchargé ba pare hmm. ak koy def sauvegarde ok instant bi ngay téléchargé ak hmm. instant bi ngay def euh, bi ngay def wala restauration bi kase nga soxla connexion sinon bu dul loolu boo ko téléchargé boo pare déconnecté déconnecté wul di ko utiliser macha allah ça c'est problème boobu. ça c'est cool ça c'est cool. donc sans connexion internet mën nga utiliser ñaawal ma ba heure bu la neex instant bu la neex jamono bu la neex. ok macha allah loolu je pense leer na c'est-à-dire booy télécharger application bi si ngay soxla am connexion pour mun ko télécharger mais boo ko xasee ba télécharger ba installer ko ci sa téléphone mën nga déconnecté wu c'est-à-dire mën nga utiliser application bi nu mu la neexee di enregistrer say utilisateur ak yépp alors léegi nag soo bëggee sauvegarder information yi nekk ci application bi nag da ngay soxla internet parce que fi mu koy denc ci cloud bi la mooy comme li ñu doon sànq ci Google Drive bi ci Gmail alors boo ko waree def opération boobu nag da ngay soxla internet soo ko defee aussi ba pare dindiwaat sa connexion nga continuer sa utilisation donc je pense que aspect bu am ama am solo la alors man franchement euh, maa ngi ñaan tailleur yi nekk Sénégal yëpp déjà tabaski baa ngi nii di waay ñëw ñoom ñëpp nañ installer application bi parce que am na solo am na solo trop simple na et aussi efficace na trop trop trop trop franchement mais question beneen bi ma bëla bëggoon laaj mooy déjà maa ngi ñaan déjà ñëpp télécharger application bi mais lan nga ñu mën a wax déjà ci sécurité wu application bi yan disposition ngeen jël pour euh, pour aar euh, données yi nga xamante ni nit ñi ñu ngi koy dugal ci biir plateforme bi. waaw boo xoolee déjà euh, pour données yi sauvegarde bi. Mhm. boo xoolee foo koy sauvegarde mooy comme ni nga ko waxee ci cloud bi nga koy sauvegarde su boobaa Google moom mooy gérer sa sécurité côté boobu ndax xam ku xam Google xam ko ci wàllu sécurité yi ko bu dee sa portable tamit ñun. amul benn données personnelles bu ñuy boo xamante ni dinañ ko jéem a laaj si sama portable et tout ça ñun leen rek la jox données yi ñuy jox du stocké te stockage bi euh, comme ni ñu ko xamee nekkul ci milieu bi mhm. benn base de données lañ ko nekk base de données bi fi ñuy wu te nekk ci benn espace boo xamante ni Android du autorisé maanaam sa téléphone mhm. autorisé ñeneen ñi ñu am accès foofu donc déjà déjà foofu données di nekk rek dafay sécuriser wu mais données ci ci bu boppam fan koy denc mën na bu ñu ko chiffrer chiffrer données yi pour pour interprétation et tout ça donc bu nga xamante ni application bi kese moo mën a mhm. lire données nekk foofu mhm. euh, ak di di fa enregistrer ay données ak di fa récupérer ay données bu fekkee cinq bu fekkee nag denc bi ñu jox ko Google mu téyal la ko nga xamante ne moom nga def jox confiance ba indi fa compte compte compte euh, mail ak ak ak macha allah alors ça c'est ça c'est ça parfait aussi euh, parce que sécurité moom xam nga dafa dafa am solo trop. Euh, parce que nekk na sujet boo xamante ni yàgg nañ ko discuter sax ci podcast bi alors donc parce que sécurité Euh, nekk na loo xamante ni euh, dafa am solo te képp koo xamante ni jaar na fi rek indi fi ay application dinañ la poser question boobu ci wàllu sécurité parce que dafa am solo trop euh, te dafa baax aussi ñu koy bàyyi xel ci suñu développement yi nga xamante ni ñu ngi koy def alors je sais que aussi projet bi nekkul loo xamante ni lu ndaw la Euh, déjà li nekk tailleur li nekk ci ay tailleur ci Sénégal bari nañu trop trop trop waxumal nag ak Afrique ak le monde entier te maa ngi ñaan tey euh, seen application bi euh, ñëpp di ko utiliser moo nekk Sénégal wala Afrique ak feneen ak feneen donc c'est sur que euh, pour que il faut que start bi gën a yaatu su fekkee bëgg ngeen yegg ci yenn niveau yi nii tu alors pour que aussi business bi gën a dox bu baax alors est-ce que am na ñoo xamante ni euh, ñoom ñoo leen ne accompagner ci projet bi ci wàllum financement sinon aussi euh, tey ji lan ngeen soxla yéen ci wàllum euh, ku leen jàppale pour que projet bi gën a mën a avancer. waaw boo xoolee application bi création bi ba ci publication bi yëpp suñu doole ñun ñoo nekk ci ginnaaw amul keneen di ci liggéey et aussi tamit ni nekkul woon loo xamante ni bu yomb la. Mhm. parce ni nga ko xamee fonctionnalité yi na. Mhm. loolu sax moo na bëri koy demandé. Mhm. mais xam nga ni loolu dafa am lu ñuy laaj dafa am lu ñuy laaj parce que mooy comme li ma lay wax machine bu baax déjà machine boo xamante ni bu am doole. lay permettre nga mën a def yenn yi euh, ba pare euh, boo ko bëggee ci store yi mu nekk fa il faut nga ci mm-hmm. aussi tamit de l'argent am na benn store boo xamante ni da ngay fay par par par par an donc donc bu fekkee ni application bi du généré lu toll noonu su boobaa day jafe pour di di di assurer loolu looloo tax sax ba ba application bi actuellement disponible ci ci ci euh, ci ci euh, ci Apple Store parce que loolu mooy problème parce que problème financier nga xam euh, loolu tax ñun kese ñu ñoo nekk derrière di dimbali tailleur yi pour proposer leen dara mais aussi tamit dañuy am limite ci ci ci kaw loolu baax sax. ok ok alors je pense que mbir la boo xamante ni ñu bëri war nañ ci jóg ah tu vois. Euh, cest à di pour essayer initiative yu demee nii ñu jëm ko épauler ba nga xamante ni dafay euh, dafay jëm ci kaw sénégal yëpp mën ko utiliser loolu aussi comme ni nga ko waxee dafa am lu muy laaj jàppale tu vois am na ay structures yu bari nag yu fi nekk comme ay DER ak yu demee noonu mais je pense aussi que personne de bon volonté yi nga xamante ni euh, yàlla def na ñoom seen seen loxo jot seen ginnaaw war nañoo mun a gestu aussi population bi gestu jeunesse bi dimbale leen ci seen projet yi nga xamante ni amaana sax nekkul day laaj financement yu bari bari bari bari bari mais y a un boo xamante ni suñ ko amee rek dinañ mën a euh, def lu rëy rëy rëy déjà li nga xamante ni moom la ñuy am lu tuuti on arrive à faire de grandes choses donc tey nag imaginer suñu amoon tey loo xamante ni lu moyen la loo xamante ni au moins di ñu ci mën a voilà def yu yu am am ay équipement yu baax c'est-à-dire am équipement yu baax ay machines yu baax euh, ay ay matériels yu baax a baax am aussi possibilité mun a héberger say produits mun a def benn communication marketing et tout ça loolu rek soo ko amee je pense que war nga mën a euh, dem fu sori sori sori sori alors Maguette je pense que léegi tey ñu yegg si si jeexitalu épisode bi. Euh, Euh, tey li ma la bëgg na laaj mooy application bi nii nga xamante ni mooy ñawal ma tailleur boo xamante ni bëgg na ko am ci téléphone am bi naka lay def. waaw actuellement nag euh, ci Play mhm. euh, bi boobu noonu instant bi nii nii dañu am problème comme logistique pour mën ko déployer parce que xam nga ni ni ni. AUS pour nga mun ko créer il faut que nga am euh, benn mat ok c'est obligatoire. Mhm. nga yor mag euh, te loolu dafa nekk benn frein boo xamante ni. Euh, technologie bi ñuy utiliser permettre nañu ko mais <laughs> matériel yi ñuy utiliser permettre ñu ko pour ñu mun ko def loolu tax loolu dafa nekk frein bu grande ci ñun boo xamante ni actuellement vraiment gars dañu koy demander baax a baax a baax parce que tailleur comme ni nga xamee mhm. ñu bëri ay iPhone la ñu donc donc loolu dafay tax aussi tamit euh, ba gars yi duñ ci kon ku dem ci Play Store bi euh, di nga mën a télécharger application bi nii di ñawal ma mun ko utiliser ci sa atelier di jëw sa mesure client yépp mais aussi ñu ngi liggéey aussi ci application euh, bi nga xamante ni mooy disponible ci Apple Store. nga xamante ni képp ku am iPhone aussi dina ko mën a télécharger et pour loolu nag maa ngi demander à tout tout le monde ñëpp ñi nga xamante ni am nañ possibilité yi nañ jéem a euh, dimbale euh, startup bi jàppale leen parce que nekk na loo xamante ni lu am solo la ba ñu mun a am matériel yoo xamante ni dina leen mun a aider pour que seen startup gën a jóg ci kaw laaju ñu ay moyens financiers sax yu bëri bëri bëri bëri mais su am na yenn matériel yoo xamante ni suñ ko amee rek dinañ mën a euh, voilà gën a mën a avancer ci nga xamante ni moom ñu ngi koy def te mu boo ko xoolee ni dañ naan mbir mu ndaw la mais mbir bu am solo la parce que li nekk ci tailleur ci Sénégal kenn xamul nu toll kenn ku ci nekk su télécharger application bi di ko utiliser dina ko fajal soxlaam te loolu je pense que am na solo bu baax a baax a baax alors est-ce que mën nañoo xaar ay version yu bees euh, ci application bi mais aussi ak yeneen fonctionnalité yu bees yoo xamante ni yéen a ngi xalaat. waaw bu dee yeneen fonctionnalité yi comme ni nga ko waxoon na loo xamante ne tey jii tailleur yi dañ koy soxla mhm. te amaguñ ko bëri na ñun dañ ci dañ ci bëri lu ñuy wax naan gérer leen ñu fonctionnalité bi gérer leen ñu fonctionnalité bi comme comme ni nga wax par tey jii war na mën a am bu euh, client bi ci yenn ak yenn yëre la ñawlu déjà ak prix bi et na yeneen fonctionnalité yoo xam ne ñu ci ginnaaw mais yooyu yëpp instant bii nii nii ñuy waxante yow ñu ci ñu ngi ci liggéey bu baax. macha parce que comme ni nga ko xamee ñu def nañ ni carrément ni nii euh, li ci def lu amal bi la. Hmm. macha allah surtout yi. Hmm. donc moo tax euh, nekkul projet boo xam ne dañ ko dañ ko euh, dañ ko ñàkkal wala affaire yooyu noonu la mais ni loo xamante ni aussi tamit lu la ñu jël suñu taxaw ci bu baax moo tax nit ñi ko ñu ci. bu baax incha allah gars yi dañ ko toog xaar. Mhm. am yeneen fonctionnalité yu am solo. ñu ngi ci yoon bi ñu ñëw incha allah. waay waay donc na yëpp xaar am na yenn fonctionnalité euh, yoo xamante ni ñu ngi ñëw euh, waa Maclean Corp ñu ngi ci liggéey bu baax a baax alors euh, fan la la auditeurs yi nga xamante ni ñu ñuy déglu mën a jotee wala mën a bindante ak yéen sur internet wala fu mu mënti doon. waaw pour pour jot moom jafewul. parce que mën nga ñu contacter directement ci ci WhatsApp. Mhm. ci numéro 77. 138 76 90 mën nga ñëw jokkoo ñu directement foofu wala nga envoyé ñu mail ci maclean maclean corp arobase gmail point directement si si si ci yooyu boo ñu bëggee contacter directement mën nga ñëw contacter foofu. a ngi aussi euh, Twitter Facebook alors euh, information yu yëpp. dinaa ko danga ma koy envoyer par mail comme ça mu dugal ko ci description podcast bi nga xamante ni képp koo xamante ni mu ngi déglu épisode bi dina am ci suufu podcast bi description bi euh, dina am information yooyu yëpp seen numéro téléphone seen euh, seen compte réseaux sociaux yi seen email ak lépp dina ko mën a am pour mun leen jot incha allah parce que je pense que li ngeen di def am na solo trop trop trop te je pense que dina bëri sénégalais yoo xamante ni dinañ bëgg interagir ak yéen soit pour jàppale leen ci projet bi mu gën a jëm ci kanam soit pour demander information wala yeneen ak yeneen alors je pense que agsi nañ pratiquement si jeexitalu épisode bi lan moo nekk sa mot de la fin. waaw euh, mënuma wax ba pare que du ma gërëm ci nga xamante ne moo ñu moo ñu yar muy Cheikh Bagne xamante ne moom mooy xeer moom laa nekk moom mooy moom mooy teg ci yoon ba état bi alhamdulilah nekk macha allah mais tamit wax ni tey jii application bi yegg see ba mën a dugg ci fii ba ñun ñu mën jot. yàlla ci loxoom la ko jaarale. macha allah mais aussi tamit di wax képp koo xamante ni bëgg nga informatique. Mhm. bëgg nga jàppale nit ñi mhm. bëgg nga yëngu ci technologie mhm. ak niveau boo mën ci yor songal li nga bëgg rek incha allah yàlla dina ci jàppale bu baax bu amul ragal amul ci xam-xam la rek boo xamante ni nit da koy jàng xam ko jëfandikoo ko loolu rek macha allah loolu am na solo alors franchement maa ngi lay remercier man aussi bu baax a baax a baax euh, déjà ci li nga accepté ñëw ci invitation bi Euh, di remercier aussi Daouda Ba bu baax a baax euh, parce que moom aussi mu ngi jàpp ci lépp li nga xamante ni ñu ngi koy def pour euh, promouvoir made in Sénégal maanaam bépp liggéey boo xamante ni ñu ngi koy defee Sénégal fii nii ay doomi Sénégal di ko def ñu fexe ba fësal ko liggéey yi nga xamante ni nag dafa nekk ci wàllu xarala yu bees yi donc bëri na loo xamante ni Sénégalais yi mën nañ ko ñu ngi koy def te kenn du leen gis bëri na loo xamante ni sénégal yi ñu ngi koy def. jógul réussirul c'est parce que dañ leen jàppalewul lu tax jàppalewuñ leen c'est parce que aussi peut-être nit ñi dañ koo xamul donc donc suñ euh, objectif mooy fexe ba chaque mercredi ñu jël benn sénégalais boo xamante ni def na benn euh, innovation wala benn créé na projet ci wàllum xarala yu bees yi ñu fexe ko fësal ba ñëpp xam ko pour que àdduna bi yëpp xam aussi que ne Sénégal fii nii am na ay doomi réew mi yoo xamante ni mën nañoo defar ay ay application mën nañoo defar euh, lu nekk mën nañ ko defar ah tu vois donc il suffit tout simplement ñu gën ñoo gëm il suffit tout simplement ñu jox ñu euh, ñu jox ñu jox ñu suñ ñu jox ñu kàddu jox ñu chance tu vois ñu mën a aussi prouver Sénégalais yëpp que ne euh, technologie fi mu toll tey ci àdduna bi. Euh, ci États-Unis wala Europe war nañ ko fa mën a tolle ñun fii aussi Sénégal mais nag li ci gën a am solo te wax nga ko ci début bi mooy il faut que ñu ci bàyyi xel loo xamante ni dafa amal njëriñ askan bi parce que amul benn sens nga defar loo xamante ni. amalul njëriñ askan bi kenn du ko utiliser mais je pense que heure boo defaree loo xamante ni rek am na njëriñ ci askan bi ñëpp dinañ ko ñu utiliser te bu ko ñëpp utiliser aussi njëriñ dina feeñ ci ñoom mais aussi njëriñ dina feeñ ci yow mi nga xamante ni yaa ko defar donc ñu ngi lay remercier bu baax euh, ñu ngi lay bu baax a baax Maguette Diallo. Euh, di remercier aussi sa collaborateur bi di remercier sénégal yëpp yi nga xamante ni ñoo ngi ñuy déglu di leen wax aussi que ne samedi prochain dina ñëwaat ci beneen épisode bi nga xamante ni dañuy continuer euh, suñu saison bi maanaam ci affaire blockchain yi ak yu demee noonu ak affaire bitcoin yi samedi incha allah dinañ recevoir ñaari invité yu ama ama am am solo et dinañ waxtaan ci bitcoin bi nga xamante ni mu lëmbee àdduna bi yëpp incha allah allez merci beaucoup ñoo ngi di jox di daje encore ba samedi prochain incha allah